barke borom Touba auzu billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi seetaan foo leen mën a nekk ci àdduna ñu leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci yonent bi di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha am mu yàgg fi loolu te wér ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul ko ànd ko ak mboolem yi ak njabootuk Serigne Touba gi ñu ngi leen di baal ak di leen baal ak di leen ndokkeel di leen fàttali rek ne ñoo ngi fii ci Mauritanie ngir eh, xew-xew bu màgg boo xam ne nii yaakaar naa ne kenn ci àdduna rawatina yoonu murit dootu ko fàtte muy Sarsara màggaluk Sarsara édition 2019 tombeek fukki yoon ak ñeent bi ñu koy taxawal ak léegi te suñ boroom eh, ci liggéeyab Serigne Touba jaarale ko kenn ci ay sëtam di soxna maam Issa Mbacké ñu gën koo xam ci soxna maam Issa Ahlu kafe ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne ni mu ngi koy liggéey ci murit yi fii ci Sénégal waaye ba bitim réew ren ji nag ni leen ko waxee màggaluk Sarsara bi ñu koy def ak léegi toll ci fukki at ak ñeent ñu amaat mbégte santaat suñ borom ñëw fii ngir dëgmal ko loolu tax na nag xam ngeen ni ñu ko ànde woon ak yéen démb ak léegi ci euh, reportage yu am solo yi nga xam ne nii ànd nañ ko génn ca départ ba ca kër Serigne Touba gi ci Daaru Manaan jaar Louga ñëw euh, Rosso Sénégal ba niñ duggee Mauritanie tey ci fajar gi étape yëpp xam naa incha allah dinañ ci ñëw ak ab tënk ak jëwriñ yi nga xam ne ni ñoom lañ invité waaye itam xam ngeen ne diirub yoon wi itam am na ay étapes yoo xam ne ni romb nañ ko dinañ ci waxtaan ak itam programme yi ci kanam naka lay demee loolu moo sabab plateau bi euh, ci njalbeen rek dañuy ziar bu baax ni leen ko waxee soxna maam Issa mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi euh, di ziar également Serigne Modou Kara Mbacké di rakam di ziar Serigne Mbaye jale euh, Sarr ak mboolem jàngkatu alxuraan ak jàngkatu xasida yi nga xam ne ni ñu ngi ci jataay bi Euh, te presse bi nga xam ne ni ñu ngi fasanti ci télévision site internet rajo ak réseaux sociaux fa yéene ko yaatal ba fu mbooleem murit rek rek wala julit mën koy seetaan euh, ñu ngi fi ñoom itam teew waaye ngir jëkkante ak waxtu wi ñu ngi dalal plateau bi euh, Serigne Abdou Lahad Dieye di coordinateur général ak Soxna Famalo nekk jëwriñu ëhlu café bu Dakar waaye di xaarandi itam Serigne Babacar Diouf nekk fii ci Mauritanie moom itam nekk fi jëwriñ Euh, ngir jëkkante ak waxtu wi sëriñ Abdoulaye dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog ñi nga xam ne ni ñu ngi seetaan ñu door a jox soxna si door a dugg ci laaj yi ak tontu yi bisimilah. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah barki xaadimu rasul sëriñ Abdoulaye ñu ngi lay delloo nuyoo bi di la ziyaara di nuyu itam kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi yëpp di ci jiital soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak mboolem bokkam yu baax yi nga xam ne ñoom la àndal di nuyu du Modou Kara Mbacké ak sëriñ bay Jalle saar ak mboolem taalib yi ñu àndal. di sant yàlla bu baax te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim bi mu nu mayee nu tàmbali woon ab liggéey ba toll ci egsi ci dëgg dëgg liggéey bi mu waaye taayu Sarsara ndax bañ ko tàmbalee yàgg na ba yàlla may nu tey ñu ngi fii ci Mauritanie ci suuf si Euh, fas yéene dem euh, Sarsara kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant euh, Serigne Touba di ñaan sun borom mu defal nu tawféex ba niñ ko tàmbalee ñu àggalee ko ne ci barke Serigne Touba. jërëjëf Cheikh Abdou Lahat ci nuyoo am solo yooyu kon ni ko waxee woon rek dañuy jox soxna Fama Lo moom itam di jëwriñu ahlu café Dakar mu biral ay nuyoom bisimilah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bisimilah. ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Mountakha Mbacké bu baax te di ko di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér noonu lañ ko ñaanal njaboot sëñ Cheikh Jëmb Fall ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ñu ngi nuyu di siyaar soxna Maam Isa Mbàkke bu baax a baax di ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko fi mission bii muy doxal maamam mu am ci réussite totale noonu la ñu siyaare nag sëñ Sidi Mbàkke bi nga xam ne moom lañu fekk fii ci Mauritanie mu ngi koy siyaar moom it bu baax a baax siyaar kilifa jataay bii di sëñ Modou Kara Mbàkke di ko jox sunu ziar mu ziaral ñu lépp képp kilifa gu fi nekk rek ak sëñ Mbaye Jalla Sarr nga xam ne mooy sunu invité d'honneur di ziar mbokk taal bi ñu fi àndal ñëpp bàyyiwuñ kenn jërë jëf jërëjëf soxna Fama Lo ci fàttali rek mooy jëriñu ahlu café bu ndakaaru waaye ni leen ko junjee eh, mbokk yi ñuy seetaan ci njalbeen dañuy daal di dugg nag ci dëgg-dëgg jataay bi eh, première question bi xam naa Cheikh Abdou Lahat lañ koy posé muy sëñ Abdoulaat bu ñu waxee euh, sëñ Abdoulaat Dieye wax alu café ñëpp gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne ni yéen a koy ànd ak soxna maam Issa ngir li yaatal liggéeyal Serigne ci réew mi ak bitim réew muy war de coordination générale mu mel ni ëxlu kafe itam bu ñu gisee seeni activité ci année bi bëri na lool waaye mën nañ bi ci gën a bokk na ci màggalu Sarsara nekk màggal goo xam ne ni coordination bi yomb na yombul bu ñu waxee yomb na ndax liggéeyal Serigne bi la bu ñu waxee yombul nag dafa national dafa international coordination boobu loo doon doon wax tey ci tënk naka ngeen koy saytoo diggante yéen ak ñi nga xam ne yéen a nekk ci réew mi ak bitim réew loo ñu ciy mën a leeral. waaw ah, jërëjëf euh, sëñ Abdoulahi ci kàddu yu am solo yi ak laaj bi ñu fas yéene itam tontu ci suñu kéemtuleel kàttan rek. ndax ni nga ko waxee euh, coordonné liggéey bu mel ni Sarsara euh, lu jafe la ndax barab bi barab bu naqaree ñëw la kon nag soo bëggee fexe ba bokki taalibe ñëw fi loolu dina laaj ay coono waaye ahlu café ni nga ko waxee e, seeni activité dafa mel ni waxtu wu nekk la moo tax dañoo lëkkale liggéeyu ahlu kafe ak liggéeyu Sarsara nga xam ne fépp foo xam ne dem nañ fa muy barab boo xam ne soxna si dafa wala mu dem fa xam ne seeti nga xam ne dafay dem e, xew-xew booba suñu ko waxee événement la bu mag boo xam ne at mu jot dañ koy màggal fii ci Mauritanie ngir màggal jeexiti sëriñ bi ak nekk gi fi nekkoon euh, teel a informé ñi teel leen a yëgal waajtaay wi paas bi dem bi dikk bi. te kenn ku nekk xam na ne soxna si euh, ni sëriñ bi xaaja woon ak dundam rek salaatu sitta bi mat ay sitta taati baatama atisa yi nga xam ne juróom-benn weer yi de tàgg yonent bi juróom-benn weer yi muy julli ci moom euh, soxna si tam mën na maa wax ne noonu la def ak dundam nekk ci waar wi eh, waxtu wu nekk mooy ak dundam moo tax eh, dana néew bis boo xam ne nekkul ci programme programme bu ñu nekk nag mbirum Sarsara dañ ko ciy boole waale loolu moo tax daanaka eh, suñu demee ba jege ko liy des ay conclusion rek lay doon waaye fekk na suñu passé Sarsara ba jubluwaat ko déwén rek barab yi ñuy dem yëpp fu ñu fi dem fu nekk la ñuy waxtaane lu mu mën a doon suñu demee ba ci jeexintal ba soxna si dana joxe ndigal ñu biral fa mbirum Sarsara ngir bokki taalibe yi man koo xam euh, loolu moo tax métti na méttiwul euh, bu dee tam ci côté bitim réew euh, yaakaar naa ne wax naa ko ci plateau yi passé ak émission yi soxna si ci biir weeru koor wi la jóge woon Touba dem bitim réew mboolem barab boo xam ne dem na fa tam moo xam sëriñ kër sëriñ Touba la wala fa ay bokki taalibe yi di daje ngir sëriñ bi di fa liggéeyal sëriñ bi ba fa demee li jëm ci Sarsara ak bokki taalibe yi man koo xam loola tam biral na ko fa waxtaane ko ak bokki taalibe yi eh, ba nu xemmem barab bi ba nga xam ne ñi nga xam ne sax eh, mënuñoo ñëw danañ yëg ne Sarsara mi ngi jegise te seen xel tam dana ci nekk eh, li ciy firnde tam mooy sëñ Baye Jali Sarr mi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw Sarsara képp moo ko yëkkati mu bàyyi ko Italie ba ñëw fii noonu nag xam naa ni mu ko man ne ñëpp mënewuñ ko ni waaye ñëpp yéenee nañ ko noonu ndax euh, barab bu sori du tee ki nga bëgg nga dem ziyaare ji ko ndax sëriñ bi loolu daf ko waxoon sur man tuhibbu wa in satat bika daaru wa alamin dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buhdun min ziyaarati innal muhibba liman yahwaw sawaaru euh, su dee ci suñu ko tam ñun ginnaaw ñooy ko yëpp euh, programme ahlu kay programme moom laa wax moo tax ma ne la bi soxna si jóge ali def nañu benn tour boo xam ne daanaka mën na maa wax ne liggéey la boo xam ne Eh, sëñ bi ñu ci dimbale waaye waxtu ñu ko def sax ak niñ ko defee waruñ ko ne mane waruñ ko ne mane ndax lu toll ci juróom-ñetti fan yoo xam ne soxna si dafa bàyyi ko ci ay coono dem nañ fi mbuur dafa benn ngont bu mag jóge fi mbuur dem xombal def ko fa jóge xombal dem njaxiraat def ko fa jóge njaxiraat dem yëmbal def ko fa jóge yëmbal dem caaroy asir def ko fa jóge caaroy asir dem amokaat def ko fa jóge amokaat ñëw Bambey ak ndàngal ma def ko fa soog ko tëjee ci kër sëñ Tuubaa kon soo xoolee loolu nga xam ne daanaka ëpp na juróom-ñetti programme yoo xam ne ay gont yu mag la yoo xam ne gont mu ne soxna si daf koy teewe waaye mu bëri itam dañ koy daf koy teewe ba ci ajaratu faamaloo nga xam ne dañu nekk ci loolu yaakaar naa ne def na lu baree baree bari liggéey bi ren ba effectif bi nga xam ne moo daan ñëw fii ci Sarsara suñ suñ borom def na mu yokk bu baax a baax a baax a baax a lay amee waxtu ne ndax liggéeyu sëriñ bi moom euh, toujours rek kanam lañ ci séentu euh, beneen bi ci dooleeku tam mooy presse bi tam jàppandalal na ñu coordination bi ndax dafa am benn kuréel bu ñu taxawal boo xam ne mi ngi tudd euh, communication Sarsara. xam naa Cheikh Abdoulaye dinañ ñëwaat ci point boobu muy communication bi diggante relation bi entre presse bi ak yéen waaye xam naa da ngay tegani foofu sa baaram ñu ñëw ci soxna Fama Lo ni ko waxee itam. moom itan yéen ñaar seen liggéey am benn liaison wax nga ko léegi li jiitu di def ngeen benn communication bu yaatu ci réew mi bu bitim réew ngir fu waay nekk rek da rawatina nga doon murit xam lan mooy dëgg-dëggi ziaru Sarsara waaye soxna si niñ ko waxee woon léegi itam dañuy desandi tey ba tey ci point bi muy euh, coordination ndax liggéey boo gis coordination boobu bu awee yoon rek liggéey ba lépp day daal di aw yoon te gàcce ngalaama macha allah kon foofee ca Ndakaaru yow ak soxna yi nga xam ne ni yéen a ànd liggéey boobu ak góor yàlla yi naka ngeen tënkoo foofu bu mën a tàbbi ci liggéey bi ba ànd ak euh, soxna si ñëw fii ci Sarsara. jërëjëf euh, gisee coordination bi ratax nii. Mm-hmm. Euh, dañu jël fédération Ahlou Café Touba de Dakar. ñu mm-hmm. góor di jigéen. Mm-hmm. kenn ku ne ñu ne la fexeel ba na nga recruter kenn ku ne bayal sa waar. demal ci sa koñ defal ay contact pour am ay nit. nga xam ni. loolu ba mu amee. Mhm. lu am nombre bu bëree bari boo xam ne daw nañ ñëw cette fois si ñëw adhéré ci ñëw mhm. euh, beneen coordination bi nag soxla si moo ko doxal boppam muy lu am solo parce que moom déplacement dafay attirer nit ñi saa yu jógee def déplacement ci ci wàllu Sarsara. Mhm. lu bëri ci la ñu gën a am inspiration dem Sarsara. parce que jàng nañu Sarsara ci histoire. mais ñëw soxna si dugg ak moom ci biir daayira yi dugg moom ci ci kii yi. Mhm. day tax ba nit ñi dañuy sawar a dem. Mhm. moo tax ren def na ci lu am solo. lu am solo. Mhm. boo gisee tey lu mu indi ci ay nit. bari na. Euh, waa ngaay noonu. waa amoo si dinu indi ci nit bari nañu. Euh, parcelle géejawaay. fépp fu mu jaar rek itinéraire fépp fu fa soxna si jaar rek. def na ravage ñu bari topp nañ mhm. moo tax coordination bi mhm. tey li ñu indi ci nit Dakar ak benn bus moo fa jóge bus mhm. 70 places jóge na ko ñëw loolu yëpp muy ndimbal goo xam ni lu rafet la daal waaw motivation soxna si daal moo ci ëpp solo parce que ñu Sarsara ñu soxna maa nit ñi dañuy sawar a dem Sarsara Euh, jërëjëf euh, soxna Fama Lo loolu leer na nañ Cheikh Abdoulaye xam naa dañuy dellusiwaat ci yow di leen fàttali rek ne suñu beneen invité bi Serigne Babacar Diouf féete fii ci Mauritanie moom it ñëw na xam naa ci kanam tuuti danañ ko dalal ci plateau bi waaye dañuy desandi ak Serigne Abdoulaye wax nga ko léegi coordination bi mais des na itam euh, ci biir coordination bi gannaaw jokkoo yi ci diggante daayira yi téléphone am na beneen coordination bu am solo mu jëm ci wàllu formalité yi moo xam këyit yi wala oto yi ngir nit ñi nag mën a accéder jóge Sénégal tàbbi Mauritanie ndax wax nañ ko nekkatul mbir moo xamante ni euh, c'est national mais c'est international relation diplomatique feeñ ci diggante Mauritanie ak Sénégal loolu itam mu mel ni euh, démb fa ñu nekkoon foofu ci poste bi am na tuuti ay jafe-jafe yu ñu fa boo doon loo xam ne ni peut-être mën ko leeral ci presse ci jafe ñu jànkonteel lan nga ci mën a lan moo ko sabab. waaw sëñ Abdoulahi waaw loolu moom mënu ñàkk ndax àddina dafa ànd ak ay ay jafe-jafe te ci jafe-jafe tam ci ngay amee ay solution euh, ci frontière bi moom toujours. danay faral di am jafe-jafe li ko waral tam mooy xam nga bu fekkee da nga déplacé mbooloo ñu ñëw de traversé frontière dem ci beneen réew euh, réew moomu tam am nañ droit wax dëgg yàlla saytu ñi nga xam ne ñooy traversé di dugg ba xam ñu ngi ci norme yi ñu war a nekk wala déet euh, te mbooloo tam nekkul ne recommandation yi ngay joxe ci la ñëpp di jaar am na ñoo xam ne leen leen saay seen carte d'identité dafay xaw a jeex Eh, mun nañ la sax mën nañ bind ba pare sax te yow doo ko doo ko maîtriser dëgg-dëgg eh, dañuy dem ba ci mujj gi rek nga soog koo xam ndax li waral loolu tam mooy xër rek ci bëgg a dem sarsaara ak tam jàpp ne boo àndee ci biir mbooloo mi jafe du am waaye comme tam contrôle bi fii contrôle la boo xam ne ñoom wax dëgg yàlla dañ koy def defin boo xamante ni bi daanaka kenn par kenn la ñuy xool eh, bu nu amee kenn koo xam ne ci biir mbooloo mi norme yi nga xam ne ci la war a nekk nekku ci te mbooloo mi duñ mën a dem bàyyi ko Euh, loolu mën nañoo yàggal ci barab loolu bokk na ci jafe-jafe yi mooy kenn wala ñaar yoo xam ne am nañ tuuti erreur ci seen pièce wala nekkuñ ci list bi wala yu mel noonu ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba ba ba dañuy dem bay départ ñu soog a ñëw ci buntu oto bi wax ne dañuy dem su ko defee mun nga yàkkamti wala ngay rappel bañ leen dugal ci liste bi soo ñëwee bu ñu leen gisu ci liste bi lu lay indi jafe-jafe rawatina nag Mauritanie fan yi kenn ku ne xam dafa am élection élection yi passé Eh, dëkk bi xaw am tuuti ay yëngu-yëngu su ko defee ñoom itam contrôle bi nga xam ne doon nañ ko def eh, dañ koy gën yokk loolu moo tax démb ñu gën a yàgg ci frontière bi te ñi nga xam ne ñoo nekk ci frontière itam dañu ay kilifa yoo xam ne ñoom itam li nga xam ne moom lañ leen jox ci ay ndigal suñu gisee lu wuute ak loolu mën nañoo sax eh, ci mbiru Sarsara tolore ko waaye bala ñu ko def nag faaw ñu yëgal ko seeni kilifa moo tax démb sax bi ñu nekkee foofu ba am jafe-jafe yenn yi dem nañ ba àgg ci gouverneur bi bi ñu demee ci moom moom itam waxtaan ak moom ci dal moom itam wax dëgg yàlla mu wax ñu wax ju rafet waaye delloowaat ñu ci ki nga xam ne moo nekk foofu ci frontière bi ñu ñëwaat euh, am nañ ay quelques cas yoo xam ne ay jafe-jafe la yoo xam ne bi ñu demee ba xam ne euh, teewul dañoo continuer contact yi ci jàppandalu soxna si ndax fi ñu toogoon noonu rek contacté na ministre de l'intérieur ba ñu def ay réaction ba nga xamante ni bi ñi nga xam ne ñoo fa desoon am nañ ñoo xam ne egsi nañ am na ñeneen ñoo xam ne tam suba incha allah danañu egsi loolu moom mooy jafe Euh, ñi nga xam ne ñooy euh, organisateurs yi mën na leen ci indexé am ngeen ci part de responsabilité bu am solo ndax jàpp naa ne ki nga xam ne dafa am yene ñëw di liggéeyal Serigne Touba ànd ak soxna si ànd ak yéen te yéen ngeen yore tout ce qui coordination yaakaar naa ne day yàlla bala moo départ Sénégal di ñëw ngeen saytu lépp luy jafe-jafeem wala lépp loo xam ne ni peut-être war naa doon jafe-jafe wàllu kayit ñun ñun nga xam ne nii xëy na ñoo am jafe-jafe yëpp ci wàllum carte d'identité est-ce que kon jotut bala ngeen a euh, moo xam Dakar wala Touba ngeen saytu mbooleem ñi nga xam ne dañuy ñëw est-ce que li ñuy laaj ci frontière bi am nañ ko wala waa wala déet waaw effectivement loolu loolu moom lu jaadu tey def nañ ko sax waaye xam nga ki nga xam ne dafa jël carte d'identité scanner ko ba pare moom daal di koy photo ci whatsapp yónnee la ko yow boo gisee photo bi ci whatsapp carte d'identité bi du manqué dara mais nag taxul mu valable parce que ko scanner nga scanner sa carte envoyé ko ci whatsapp bi soxna a bind ko nga bàyyi fa sa carte d'identité original indaale li nga xam ne mooy buñ scanner bi ñoom suñ ko xoolee ñu scanner ko duñ nangu mu xam nga loolu soxna Fama mën na ma wax deful benn faute mais ki nga xam ne moom moo yor carte d'identité original am denc ko ca gaalam parce que carte d'identité du pour denc yi ak rajo yi ak même réseaux sociaux yooyu gis nañ wax ci lu baree baree bari nañu fexe ba carte yi ñu indi ay carte yi nga xam mooy CEDEAO yi parce que yooyu léegi moom la ñu am na ñoo xam tam dañuy jàpp ne comme Sénégal mën nañ toléré carte bu jeex bi nga dem jëli ci xaalis wala nga def ci nangam dañuy jàpp ne loolu walaa bal Sénégal walaa bal na ci réewu jàmbur su ko defee nag ñoom loolu moo lay trompé su ko defee carte yi bu ñu su légalul ñun ñu teel laa dëpp nga jëli sa carte d'identité balaa ngay dugg ci oto bi loolu moom yaakaar naa ne édition yii di ñëw insha allahu taala danañ ci taxaw te yaakaar naa ne tam danañ ñaan niñ cam dimbalañ ci baax a baax ba képp koo xam da nga a dem Sarsara ngay yor pièce boo xam dafa légal ndax soxna si benn nit rek suñ ko bàyyee ci frontière bi jàllul loolu daf koy metti da koy day mel ni ñëpp lañ téye ndax mbooloo mi su sañoon kenn koo xam ne da ngaa jóg def sa yaakaar ci ziyaare ji ñu téye la du mën a am waaye itam autorité yi itam wax dëgg yàlla nañu gën a jàppale ñoom bu ñu jàppalee rek yaakaar naa yooyu yëpp itam dana mën a dem ba jeex incha allah xam naa dinañ dellusiwaat foofu dañuy euh, desandi ci question boobu ak soxna Fama Lo soxna Fama comme ni ko Cheikh Abdoulaye waxee ñu gis ko ñun ñëpp muy euh, démb jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko ci frontière bi waaye buñ buñ waxee jafe-jafe jublu ñu ci lenn ndax buñ xoolee ki waral mbir mi muy Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul bi mu fi ñëwee ni mu def ba ñëw fii ak itam ñu ko fi daan fekk si mag ñi jafe-jafe yi ñu daan jànkonteel kon ñun lii xëy na jamono fa toll waaye waroon nañ ko sax rusa tudd waaye jamono moo fa toll te jamono di dox mel ni da ngeen a ay soxna ak ay tuut tànk ñu dund yu mel noonu tey boo leen doon soññ ak euh, lancé waat message ngir euh, ñu gën a soobu ci liggéey bi ak liggéey yi di ñëw lan nga leen di wax leen dal nii mhm. mhm. ci ku mhm. koo xam ne ëllëg di nga dem ba fàtte say kii da lay jàngal ni ëllëg bu fekkoon avion ngay jël. Mhm. doo fàtte sa passeport. Mhm. wala doo photocopier sa passeport indi. Mhm. ba nga xam ni euh, ci plateau yi ci ci ci appel yi ñuy def yëpp. préciser nañu ni carte d'identité CEDEAO ngeen di indi seen carte d'identité. on a bien précisé carte d'identité mais ñoom ñoo def leen neex. ñoo ñoo ñoo def leen neex daal. comme ñoo ko mën a waxee. parce que jël sa carte d'identité ñoo la indil sa carte d'identité. nga bàyyi fa sa carte d'identité indi sa photocopie. donc yow li la dal yaa ko teg sa bopp ñu man mooy def nañu appel woote nañ leen jox nañu seen numéro euh, d'identification bu CEDEAO enregistré nañ ko nga ñëw indi indi leneen donc yow yaa tooñ sa bopp njàngat la ci ñëpp koo xam ne ku ku mu dalul ëllëg na fagaru te xam ne booy ñëw na say pièces mat euh, lu mel ni sax sëñ bi laa xalaat mhm. que ay jafe-jafe yi am ba ma dem ba ci ambassadeur euh, Mauritanie. Mhm. bi nekk Sénégal. Mhm. toog ak bi wax ak moom. ñu mhm. des fois dañuy am ay jafe-jafe ci yoon yi parce que dañuy arrêté lu bari contrôle bi dafa bari. mu ni ma amul problème ma expliquer ko lépp mu ni moom ci boppam. le premier conseil du de ni ma yéen li ngeen di dox. lu baax la parce que du tey da di renforcer. Euh, relation diplomatique yi am entre Sénégal et la Mauritanie ndax lu baax ngeen di dox mhm. demu leen ba pour kii parce que da ngeen dem euh, butéeli mi sarsar bi ngeen wax ci désert bi la mhm. nekku leen biir Mauritanie di fa def yéen a ngi dem ci désert bi te foofu désert bi seen sëriñ lañ fa yóbboon mhm. déplacement bi ngeen def mais day apporter économie Mauritanie am na lu ñuy apporter yéen a ngi fay mag yéen a ngi ngeen dugg itam yéen a ngi soxna Fatma xam na soxna Fatma xam naa day jëkkante ak waxtu bi. mu mel ni noonu nga ko waxee euh, recommandation bi xam naa dinañ ci dikkaat ak Serigne Abdoulaat xam naa yow dañ lay duñ def lu duti yewi la rek comme ça dalal Serigne Babacar Diouf muy jëwriñu euh, Mauritanie su ko defee itam tomb bi ñuy kii euh, mu ñëw mën cee développé mm. ñu desandi ak Serigne Abdoulaat comme ni ko waxee léegi mm. mu mel ni ba tey dañuy desandi rek ci màggaluk Sarsara mel ni da ni ñu ko waxee woon ci njalbeen événement majeur la bu international diggante réew ak réew diggante réew ak réew nag bu ñu ko waxee soxna si wax na ko léegi relation diplomatique da ciy am diggante ñaari réew ñaari réew yoo xamante ni tóoroo nañ mais nag bokkuñu benn zone CEDEAO ndax bu fekkee peut être Mauritanie dafa bokk zone CEDEAO mën na ne xëy na jafe-jafe yi du demee noonu waaye ndax kon jotul diggante ñaari gouvernement yi ni ma ko bëgg a waxee ngeen gën leen a impliqué ci liggéey bi li ma ko li ma ci jublu mooy est-ce que jotul kon màggaluk Sarsara di am CRD préparatoire ngir jafe-jafe yu bëri tam man cee génn. waa jërëjëf euh, sëñ Abdoulahi waaw loolu moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla lu jaadu la te jàpp naa ne tam événement bi e, dayo bi mu am ak ni mu toll ci diggante ñaari réew yi lu jaadu la ndax bàjjan faama junj na ko ci mujj waxam mooy événement bi. Eh, dafay yeesalaat kóllëre gi dox diggante eh, magi lislaam yi Mauritanie yi ak magi lislaam yi Sénégal yi te sëriñ bi gën cee ràññeeku ndax damay wax ne moom ci biir ay waxam sax dafa jox orma dëkk bi ba suuf si mi ngi koy wooye ardu sax kon loolu mooy wane ne jox na dëgg dëgg dëkk bi gëdd gi mu war a am dañuy ñaan ñun ay citoyen lañ yoo xamante ni bii doomi réewu Sénégal ak doomi réewu Mauritanie ñoo ci xasoon ndax suñu ñëwee fii ba dem Sarsara da nga gis ne na fa euh, nit ñu ñuul ñi di toll muy sénégalais yi noonu la fa naar yi di toll kon événement bi ni mu itteele sénégalais yi noonu la itteele waa Mauritanie kon nag yaakaar naa suñu ñaari état yi nga xam ne ñoom ñoo ñu yilif war nañ cee mën a tàbbal seen loxo ba gën ñu koo jàppandalal euh, seen loxo parce que ambassadeur bi nekkal Sénégal euh, fi yónnee liste yi waa bi nga xam ne ñooy yor relation extérieure danañ fa dem danañ leen danañ def li war a def lépp am na at yu doon yaakaar na loolu ñaari at yi passé rek la amul bu dee tam ambassadeur bi nekk Mauritanie eh, ren bi ñu demee Badiane Fama tam fa expliqué ko dégg wax daf ñu defal benn recommandation boo xam ne bu mat sëkkale boo ko liiree nga xam ne dara manqué ci wax naag eh, ñi ne ci frontière bi ñi ñi nekk ñi jaar ci yoonu contrôle beeg yëpp def na ko waaye nag eh, jaadu na. war na eh, ñu mën a def ab daje boo xam ne dafay lëkkale eh, maanaam ñi nga xam ne dañuy yëngu ci sarsaara ci diggante ñaari réew yi nga xam dañu koy waxtaane ba nga xam ne même fay bi ñuy fay bag bi vraiment loolu war na ci ko mën yombalal ba nga xamante ni bi bokkuñoo koo xam ne dafay ñëw fii jënd si marchandise wala muy dox si soxla am ñun cinq jours wala 6 jours lañ fi am pour ziar bi vraiment oto yi war nañu mën a fexe ba ak passager bi jaar duñ teg kenn euh, saaru juuteeg wala ay ay ay ay bagak ay de douane maag yu mel noonu yëpp ñu mën na ko teggil ba liggéey bi gën a yomb. Euh, Cheikh Abdou Lahad est-ce que loolu noonu relation diplomatique boobu am diggante ñaari état yi. est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a ngi organiser xew-xew bi yéen a ngi ciy def ay jéego ngir loolu am waaye effectivement ñu ngi def ay jéego parce que euh, fédération Cheikhul Khadim xam naa du ngeen ñàkk sax ñoom da ngeen seex ak ñoom waxtaan mel nii nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ñoom dañ ko ba bañ nga am commission relation extérieure boo xamante ne bi ñoom lépp loo xam dafa ñëm ci wàllu autorité yi fii ci Nouakchott ñoom ñoo koy dox nga xam ne ministre de l'intérieur xam na événement bi euh, dégg euh, conseil xam nañ ko ambassadeurs yi xam nañ ko euh, commissaires yi nekk ci frontières yi xam nañ ko dëgg-dëgg ni ñu ko war a xamee mais nag naa am liñ ci war a def dëgg dëgg dëgg dëgg defaguñ ko daal des na loolu moom ñu ngi koy jàmbat te di ko tawat te koy sàkku ndax bu ñu waxee ne Sénégal ñi fiy jógee ëpp nañ lu mat juróomi téeméeri nit yoo xam ne dañuy ñëw di traverse frontière bi di ñëw fii wax dëgg yàlla loolu nekkatul événement bu ndaw xoolee biir Mauritanie li fi nekk ci ay sénégalais ay murit ñooñu képp su fekkoon ñooy def événement bi rek ñaari réew yi war nañ cee waxtaan ba yombalal leen bàyyi ko fii parce que yaa ngi wax léegi désert bi parce que foofu soo fa demee eh, la fa jaaru bari na parce que danañ fa soxla santé danañ fa soxla sécurité danañ fa soxla ndox danañ fa soxla ay base danañ fa soxla leneen leneen mais yooyu yëpp dafa mel ni taalibe yi ci seen moyen bopp rek lañ koy defee loolu nag état suñ ci yàppoon wax di yàlla day baax euh, mbokk yi nga xam ne ni ñu ngi seetaan euh, fu ñu nekk ci réew ak bitim réew ñoo ngi fii ci Mauritanie ci quatorzième édition màggalu Sarsara wala ziar Sarsara édition 2019 ànd ci ak euh, télévision yi site internet yi ak rajo yi réseaux sociaux yi ñu koy yaatal bu baax a baax a baax euh, ni leen ko waxee itam euh, ci njalbeen gi suñu beneen invité bi ñëw na Serigne Babacar Diouf nekk fii ci Mauritanie nag di coordonner liggéey bi kon sëñ Dioufène xam naa dafa nekkoon ci xéwal yi xëy na bay door a ñëw ni ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la dañ lay bàyyi nga nuyoog mbokki taalibe yi ñuy seetaan ñu door dugg yow ci sa laaj sa auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar jaajëflaat baax si ñëpp laat ci dalal bi nga xamante ni bi dalal Ngagne Ndour di jaajëfal mbooloo mépp di nuyu baax ki nga xam ne maanaam mooy fa ak jotaay bi di Serigne Kara jàll ba ci soxna ma Aysatu Mbàkke indi suñu mudi fata faye waaye di siyaaraat bu baax a baax mhm. jëmm ji nga xam ne maanaam moo fi sëriñ Sidi mhm. moom Cheikh Amadou Moutada mhm. di fi suñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci turu daayira wala xadd karam naa sëñ daal jërëjëf xam naa dañuy daal di dugg ci laaj bi euh, euh, ci euh, ni ko waxee ci njàlbeen rek muy diggante liggéey bi nga xam ne nii ñu ngi koy soxna si mu ngi koy def mu ngi euh, euh, fasantikoo ci ay daayira ak ay mbooloo yu ne ci réew mi ba bitim réew waaye mën nañ ne fii ci ci Mauritanie foofu la ñuy defee màggal gi kon yaakaar naa ni mboole mi féete fii am nañ ci ab wàccuwaay bu am solo bu ñu bëgg na xam wàccuwaay walla coordination wala liggéeyub euh, wala xadd karam naa ci biir Euhlou Café loo ñu ciy leeral. waaw jërëjëf mel ne laaj bi am na solo. Mhm. comme noonu nga ko waxee. Mhm. suñu digganteeg soxna si ci maanaam liggéeyub Sarsara moom. Mhm. daa doon liggéey boo xam ni. dañoo yaakaar ni rek mhm. maanaam lu sëriñ bi namm rek la mhm. ndax doon na loo xamante ni bii ne mhm. même moom bu ko sàkkoo tamit dañuy jàpp ne rek maanaam lu sëriñ Tuubaa maanaam dogalan lii dal faaw mu am ci liggéeyam bi la ndax daayira wala xadd karam naa sarsaara ak lu kafe bi muy bi muy xamanteek soxna si boobu ak lu kafe sax duggagu ci mi ngi tuddoon wala xadd karab naa wala boog mi ngi tuddoon daayira sarsaara bi nga xamante bii ne maanaam sarsaara jot na ba soxna si ñëw fi dajeek ñoon mhm. ci la ñëw siyaar si ñu mhm. ba nga xamante ni bi ne suñu diggante mhm. am na lu war a mën a tax maanaam moom tey mu rafaatale ñu oxlu kafe ci loolu la ñu ànde liggéey bi ba tax moom mu sàkk woon kat maanaam liggéey bi nu ñu ko fas yéene ànd ak moom ci maanaam wàccuwaay yooyu ngay waxit taxoon na ñu jël maanaam maanaam initiative bu toll ni saa bu fi ñëwatee mhm. lépp loo xamante ni bi ni mhm. maanaam gan war na ko yelloo ci maanaam ku ku ku jóge ci réew ñëw ci réew rek mhm. daal wala xadd karam naa sar sa awlu ko fe ne ko daal fas yéene na ne maanaam jàppanteeg yow ci loolee ngir liggéey bi mën a jëm kanam gannaaw sar saara ak ni ngeen nii am na yeneen activités yoo xam ne nii yéen a ngi koy def ngir yaatal liggéey ba yeneen murit yi mën yaakaar naa ni ci la murit yëpp yu rawatina daayira wala xadd karam naa sar sa awlu ko fe ndax du sar saara rek la ñuy liggéeyal waaye dañuy ne ci liggéey bépp liggéey Serigne Touba. Mm-hmm. ndax booy liggéey. Mm-hmm. ba ñu ñëw rafaatale lu toll ne ak lu kafe te ku ne mm-hmm. xam ne ndaje murit fu mu nekk rek café dafa mën a ñàkk ci loolu la ñuy sukkandiku te xam ne soxna si doxe moo tax ci la ñuy sukkandiku ba tax na lépp loo xam ne maanaam eh, am na ci ay xew-xew ci mbiru sëriñ bi saa suñ ko yëgee rek dañuy dem comme ni nga xamante noonu la ko soxna soxna si di taxawale fu ne ñu fas yéene ànd ak mbooloom daayira bépp dem taxawale ko noonu ci fépp foo xamante ne bi ne liggéey sëriñ bi ma waaw xam naa euh, question bi mujj euh, mooy euh, boo doon lancé wala ngay soññe mbokki taale yi nga bokkal liggéey bi ak ñi nga bëgg ñu tàbbi si lan nga leen di wax waaw ginnaaw soññee beeg lancé bi nag mhm. daanaka suñuy kàddu sax daam fu ko war na njëkkee mhm. waaye day xelum doomu moom mooy fattu mhm. waaye bokk na ci rek ah, di sant bu baax yàlla suñu borom bi nga xam ni moo ñu may tey li nga xamante ne moom moo fi jàll muy ay élection ñu génn ceeg jàmm mhm. te ki nga xamante maanaam moo fi faluwaat bees di Mouhamed Wuld Xazwaani mhm. ñu koy ñaanal maanaam réew mi nga xamante ne bi ne Mauritaniens wóolu nañ ko ba tegaat ko ci loxoom mhm. lépp loo xam ne li ñu ngi koy séntu ci morom ñu dem ba am ci lu kawe njort waaye ginnaaw loolu tamit mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñu ngi dëkk ñoom ndax boo xoolee li ñu wër fii lépp ay naar la maanaam nit ñu benn nit bu lépp ay naar la kon ñoom dëkkandoo yooyu tamit wax dëgg yàlla jot na maanaam tamit yàlla na mhm. ñu amel ñu beral leen cant goo xamante ne bii ne mhm. maanaam am na commencé waaye amul yam waay mhm. ci wàllum soññe bi comme noonu nga ko waxee nag ci bokk taalibe yëpp ñu sénégalais yi ne fii te nga xamante ne bii ne ku ci liggéey wàcc jëm sa kër yaakaar naa bu ñu saxee ci loolu rek jàmm ji ma naa gën a yaatu lool te moonoom maanaam mbooloom wala xadd karam naa sata alu ko yaakaar naa ci loolu lañ tënku liggéey wàcc bu sëñ bi wootee ñu dem ci loolu daal lay soññee mhm. maanaam di soññ mbokk taalibe yëpp mhm. fépp foo xamante ni bi ne sénégalais sénégalais ma nga fa mhm. ne ci réewum jàmbur bu yemee ci liggéey wàcc bu sëñ bi wootee mu dem yaakaar naa ne fu fu jàmm di am rek maanaam lu muy lu muy séntu ci jàmm rek dina dem ba am lu lu gën a kawe lu si ñëpp laat jërëjëf euh, Serigne Babacar Diouf doon adoo ci kàddoog waa euh, Mauritanie euh, daayira wala mbooloo mi nga xam ne ñoo di wala xadd karam na Euh, liggéey bi am na solo yàlla na suñu borom yàgg a dogal euh, ànd bi ngeen làq ci ngërëmal Serigne Touba Cheikh Khadim kon xam na ngir jëkkante ak waxtu yi ndax techniciens yi ñu ngi signalé léegi daanaka waxtu yi xojju na laaj bi mujj bi Cheikh Abdou Lahad mu mel ni màggaluk Sarsara du benn du ñaar du ñetti fan daanaka une semaine la waaye booy jokkoo ak ñi nga xam ne nii ñu yaa ñu ngi gis publication yi wala ñu ngi gis euh, statut yeeg yooyu dan lay laaj màggal ak Sarsara ban bis la wala lan mooy dëgg-dëgg màggal gi ñu gis ne dinañ fi def au moins une semaine am na yeneen événement yoo xam ne nii dana fi am gannaaw bi ñu déparé Touba wax nañ ko jaar Louga jaar euh, Rosso ci événement yu am solo yi lépp ñeel liggéey bi mun ñu ba fii ci dëkk bi nag avant Sarsara wala ak après Sarsara yan événement ñoo fi am pour ñi nga xam ne ni dañuy laajte mën koo xam mu leer nañ waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye tam sëñ Babacar wax dëgg yàlla ñoom itam ñu ngi leen di a baax a lool ci liggéey bi yaakaar naa soxna si mhm. eh, taxaw bi ko taxawu daal rafetlu nañ ko rafetlu boo xam ne mu mënuñ koo wax ci suñu làmmeñ waaye ñaan rek soxna sépp ñu ngi koy yëg seen xol dañ leen yàlla doole jàppale barki seen Tuubaa ni nga ko waxee nag sëñ Abdoulahi li wees woon moom jàpp naa ne résumé nga ko waaye li ñu jëm eh, suba ci àllarba ji insha allahu taala moo war a nekk li diis eh, suba bu ñu xëyee eh, ba maanaam midi dañu war a dem ci taalibi Seex Masamba bu mag bu ñuy wax sëñ sa baara waaw euh, comme ni ma ko waxee rek mhm. eh, yaakaar naa li weesu moom comme ni nga ko tënkee noonu la demee mhm. waaye suba ci àllarba ji mhm. war a doon le 10 eh, bu mi di jotee dañu war a dem ci sëñ sa Fall sëñ Sabara Fall nag day taalibe bi Seex sàmba bu mag boo xam ne da daan def fii sant Seex ma Masamba di sàkku njabootu Seex Masamba di fi teew si eh, waaye comme soxna si xat na soxna si wax ko ne ko dee ko dajale ak Sarsara su ko defee ñun ñu jiitu si fi suñu ñëwee ànd yow cant gi soo dem Sarsara moo tax sant ma Massamba googu mhm. suba lañ ko war a def incha allahu taala soxna si mu ngi koy fàttali délégation bépp midi incha allah mhm. war nañ daje ñëpp ñu dem fa mhm. suñu xëyee nag ci alxemes ji mooy le 11 le 11 boobu nag moom mooy mooy bis bi ñuy dem Sarsara mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy jógee Nouakchott jël 4x4 yi dem Sarsara euh, euh, trois heures tam oto yi dana fekk yëpp ñëw incha allahu taala léegi nii sëñ dongo mi nga xam ne mooy rowal oto yi ñu ngi ci doon jokkoo ba signé nañ contrat ak ñi nga xam ne ñooy war a jox alxames 3 heures la oto yi di ñëw bu ñu julee tàkkusaan soxna si génn ñu commencé rappel mbooloo mi ñenn ñu nekk ñu dugal leen ci oto bi ñu war a dugg ñu war a départ nag wuti sarsaara sarsaara dinañ fa àgg digg guddi ba fajar ndax li waral loolu mooy yoon bi dafa sori dafa metti te ñëpp duñ départandoo mën nañ départandoo tam te duñ àggandoo ndax euh, xam nga délégation bi moom day bëri mbooloo mi bëri yoon yi itam neexul kenn ku ne ngay xool yoon bi nga xam ne moo gën a jub ci yow rek waaye daal mbooleem ñu départ fii danañ daje sarsaara ci digg guddi gi sunu fanaanee nag ba subaak jàmm ca ajjuma ja mhm. war a nekk le douze ajjuma jooju nag lañu war a dem ziyaare ji barab yi barab yi nga xam ne kër ga moom fa la ñuy dal foofu la ñuy def xayma yi H Misri mhm. bi nekk Marta Mulaan ak njabootam ñooy indi foofu xayma yeeg lépp mhm. bala ñoo dem tànt yi lépp dafay nekk euh, waa Mauritanie tam danañ fa yóbbu groupe euh, danañ fa yóbbu tam ay làmp danañ fa yóbbu sonorisation danañ fa def base bu ñuy jàngi alxuraan bu ñuy jàngi xasida mhm. lépp daal danañ ko waajal mhm. suñu xëyee nag ci suba ajuma ji na la dem ci barab bi sëriñ bi daje woon ak yonent bi sallallahu alayhi mhm. te foofa la ko jeexee alwirdul maxuus minallahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy barab bi nga xam damay wax ne man gi mbindeef ak ngën gi mbindeef ñoo fa daje woon ñu ziyaar barab boobu ziyaar tam siyaan ga nga xam ne fa la daan roote eh, barabi siyaare yi fa nekk ñëpp ñu ko bu ñu julee tàkkusaan ba noppi ci njiital sëriñ Sidi Mbàkke la ñuy jëlaat mbooloo mi dugalaat leen ci katkat yi ñu dem nag dëkk bi ñuy wax marta mu daala ngir siyaari ji as misri as misri itam dana fa def ay tiranga yu baree baree bari diggante tisbaar ba takkusaan daal jàpp timis su tiranga yooyu jot jeexee nag ak waxtaan wi mhm. moom mu ñaanal mbooloo mi ñu ñëw fanaan siwaat waat ci guddi gaaw gi mhm. bu ñu fanaanee ci guddi gaaw gi nag bu ñu xëyee ci gaaw bi nit ñi dañuy dallu ndax sarsar bu ñu fa jógee dañuy sonn mm-hmm. waaye dallu bi tam xam naa du bari lool ndax bu ñu demaatee ba julli timis mm-hmm. dañuy delluwaat ci musée national bi nga xam ne mm-hmm. euh, ay kilifa yi mauritanien yoo xam ne ci wàllu administration bi ak ci wàllu kilifa yi diine danañ fa teew ak Serigne di Mbacké mu Cheikh Mamadou Mourtada ak soxna maam Issa ak délégation yi nga xam ne yëpp ñoo composé liggéeyu sarsara bi ñu daje foofa nag saafonte waxtaan fa suñu fa waxtaanee ba noppi nag dañuy delluwaat ci buntu kër Serigne Touba ca Euh, cinquième mhm. foofu la ñuy defee nag cérémonie officielle bi mhm. nga xam ne état bu Sénégal seen ambassadeur dañ leen fa teewal mhm. waa Mauritanie nañ fa teew ñu saafonte fa ay kàddu joxlante fa ay tiranga ak yu ni mel euh, su ko defee bokki taalibe yi nag fanaan faa waxtaani Serigne Touba ba bët set bu ñu bët setee nag incha allah la laxas nag wuti Sénégal loolu moom mooy programme bi loolu nag dimanche lay tombeel le 14 incha allahu taala mooy jeexal li nga xam ne mooy siyaar édition 2019 euh, bi kon daal loolu lañ mën a wax ñu ngi sant yàlla baax di gërëm di leen sant di leen gërëm yéen waa presse bi tam ndax gis nañ seen i taxawaay wax dëgg yàlla eh, sonn ngeen eh, liggéey bi lépp metti na waaye da ngeen a xam ne rek yéen a si yéen ci bokk benn wàccuwaay ndax Serigne Touba ngeen di wut moom itam muy wut Serigne Touba kon nag kuy bëgg ku la wéttali ak ku bëgg tëjal bunt bi waru leen a boole kon loolu moo tax liggéey bi yéen ñëpp jàpp ngeen ci yàlla na leen yàlla fay leen koy seen jot ci média yi ba yéen ji ngeen am ci wane liggéeyu Sarsara suñu borom defal leen ko ci barkeb Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp di salaam wa rahmatullah Serigne Abdoul Ahad euh, jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne nii ñu ngi doon euh, bàyyi xel kon mbokk yi dafa mel ni jot nañ euh, waxtu wi nga xam ne nii fi lañ war a toxale jëm yi yëkkati jataay bi jot na xam naa dina leen jox dox daje ci yeneen jataay yu gën yaatu waaye ci fàttali rek ñu ngi amoon plateau bu am solo nii ci teewaayu soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi Serigne Modou Kara Mbacke waaye itam ci teewaayu euh, soxna Ndey Mbacke Bintu Madina soxna maam Aram Mbacke euh, soxna Ndey Say Mbacke soxna maam Asta Mbacke soxna maam Jaara Mbacke ak soxna euh, maam Bousso soxna May Bousso soxna May Bousso ñoom itam di ay euh, soxna yoo xam ne nii ñoo soxna si ñoo ànd liggéey bi di jaajëfal itam suñ invité yi nga xam ne ni ñoom lañ dalaloon plateau bi Serigne Abdoul Ahad Dieye euh, Serigne Babacar Diouf ak soxna faama ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne ni doon nañ ko leeral mbokki taalibe yi lépp ñeel ziaru Sarsara édition 2019 niñ ko waxee léegi rek jataay yi yemul ci benn dinañ gën yaatal ñi nga xam ne ni dañoo nekk bitim réew waaye nekk ci réew mi di seetaan télé di déglu rajo yi di topp internet bi mën a dundandoo ñun lépp loo xam ne ni am na fi ci Sarsara di leen baalu ak di leen baalu ak di ñaan lépp lu ñu fi liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu nungul ñu ko ñu delloo ko ko addiyam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh